barakaatu def leen nii seen loxo wax leen ñun ay jullit lañ yàlla mooy sunu boroom muhammad mooy sunu yónent alxuraan mooy sunu téere lislaam mooy sunu diine jullit yi jullit yi jullit yi ñooy suñuy bokk bismillahi rahmaani rahim rabbi srah li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. yàlla na nu yàlla mooy dund gu barke yàlla. yàlla fekkee déwén te ko. toogoon nañ fi daaw ñaanoon yàlla fekke ren. baaxee na ba ñu bari ñun fekke ren. yàlla ñu fekki déwén te ñu ko fekk woon daaw te wóote ko ren ña ci tukki yàlla na ñibbisi ci jàmm ca feebar yàlla na yàlla saafara leen ña ca faatu yàlla na yàlla yërëm leen te boole ca yaayu nogo yi yaayu nogo yi démb la faatu ñëwoon na ba si boxotaan doon ñëw ci conférence bi yaayam faatu mu dëkk meer yaa ma jéey yàlla na ko yàlla yërëm waaye yërëmal leen ñi ngeen fi xam teñ faatu ak ñiñ fi xamut ak ñiñ fi bokk xam yàlla yàlla yërëm ñépp xas mbàkke dellu si nañ beneen yoon kon ci suñu jataay bii yàlla yàlla yokk ci barke jaajëfal sunu mbokk al Oustaz Ahmed Dame maa koy dey léegi naan ko Serigne Cheikh neex na booy wax li ngay wax moom daf koy comprendre waaw maanaam yéen a tolloo fréquence <laughs> te bëri na ci moroom ndax buñ fi jógee commentaire yi ci ngay xamee ne yaa quelque chose kon niñ koy baaxoo defe mooy bu defee waxtaanam ci suba gi bu ñëwee ci ngoon gi ñu jéem a def li ci tege bu nu jullee tàkkusaan ba ñëw ma taaja boon bu ñu taaja boonee ba daaneel daaneel kàddu yi ñëw ci recommandation yi ndax dafa bokk ci liy jekk-jekkal liggéey am na ci lool maa ko moom waaye li ci ëpp yéena ko moom loolu nag bu nuy jeexal insha allah daañu ci ñëw ci tomb yooyu du ñëwaat nag ci yi sëñ Mbàkke lim ci délégation damay daldi dugg ci waxtaan wi ñu ma sant te mooy xaajub ñaareel bi ci siiwalukaay yi siiwal yu baaxul yi ñu ne ma mën naa jël tombub ñaareel bi doon nga ko junj léegi muy bi ñuy wax ngóor jigéen bi ñuy wax ngóor jigéen incha Euh, siiwal dama ni tomb bu gàtt ci liñ tuddee ay siiwalukaay xëy na tey ñu leen tuddee ay média sunu réew dañoo wax ni média yi ñooy jëli xibaar yi yët ko nit boo xasee xëy rajo boo taal ay xew-xew la lay wax télé boo taal ay xew-xew la lay wan buñ noppee ci xibaar yi xew-xew yëg yooyu dugg ci yeneen bu njëkk nag boo naree def métier moomu dañuy xam ne mën nga ci làkk yi nga koy bëgg def bu dee tubaab ñu xam ni dégg nga tubaab bu dee wolof ñu xam ne dégg nga wolof dégg wolof nag tekkiwul mën a làkk wolof dégg wolof mooy xam kan mooy wolof ak ñan ñooy wolof xëy na dégg tubaab moom mooy nga mën a làkk di rouler r yi di taxaw ci virgule yi walla di noyyi ci virgule yi di taxaw ci point yi loolu moom xëy nattkat yi ñoo koy mën a natt waaye bu école boobu defatut li doon def dootuñu formé ci ay journaliste professionnel te mbirum amateur fu mu dugg rek lay yàqu ëpp lay defaru alxuraan daf ñoo joxoñ yaay lu si ne amunu ñun ñëpp nu wuy sunu borom loolu ñu doyee mu ne in jaakum faasiqun bi naba fatabayyanu fu ngeen dégg xibaaru amateur fatabayyanu da ngeen ko topp seet ko ba ndax ki nekk amateur léeg-léeg information bi muy joxe mën naa am mu nekk bu sensible ci wolof te sensible ci tubaab bu déggee wolof dana xam ni bii dafa sensible mu xam ndax léegi joxe ko jot na walla weesu na mbaa xewi na ndax xibaar bu xewi joxe ko amul njëriñ lu ñépp xam jarta wax mbaa loo ci wax doy na mooy waral léeg-léeg nga dégg ci way nettali yi koo xam ne làkk wi muy sottee journal bi déggut làkk wi muy làkk wolof loolu nag dana ko dugal ci léeg-léeg mu am benn xibaar xibaar bi nit ñu soxlawuñu ko waaye mu jox leen ko juñu ko ko léegi euh, envoyé nit benn benn vidéo nga ne càpp di seetaan fekk moom mi la ko envoyé bëggul ci nga am ci njariñ déedéet moom def cee bëgg ay vues ay vues bu amee dix mille vues jàpp douze mille yow léegi dañ lay wax ne demal ca barab sàngam ñi joxe xaalis yi am nga fa nangami euro boo ko sottee ci suñu franc CFA nangam lay tekki kooku kon day sànni rek léeg-léeg sax nga dékku ne la ku envoyé audio bii juróom fukki ak juróom sa aajo faju moom la aajoom di faju moom mii am ay vues waaye yow moom sa aajo du fajoo ci envoyé ay audio <laughs> man nag yàlla daf maa dimbale ba nga xam ne oustaz daam ak ma cee noppalu ndax boo jàngee wala asri sëñ Mbàkke temps bi nga desee ci sa dund gi doo ci xajal ay audio yoo xam ni treize minutes douze minutes quatorze minutes nga bëgg cee yenn doo def doo am temps kon média yooyu nag ci pénc mi nun ñu ñu tuddee xeet bi léeg-léeg ki koy def bu la rawut bu la rawut du la jëriñ daf laa war a raw ci xam-xam bi nga koy sottee raw la ci jikko ji nga koy defee xam jumtukaay bii mu yor ban la ndax mikro du du bébé micro mbàkke du bébé micro vieux la wala micro màggane la dafay yàgg avant ñoo am indépendance la fi micro yi nekkoon bët yi ndax boo toogee ci wax ci micro rek loo wax rek duñ wax ni diwa ko wax micro baa ko wax yow mi yor micro bi nag xamal ko li nga ci sotti lu doon yëgal ñi lay déglu ñan te bañ a blessé peuple bi mbokk yi média yooyu nag ñooy siiwal yi ñu bëgg mu siiw ñooy wax peuple bi li xew barab sàngam ndox ma bari na nit ñaa ngay xuus xibaar yooyu ñu ñëw nag ci suñu tomb nu wax ñu ne média yi siiwal yooyu nga xam ne lu nu jot rek la waaja ne woon du nu nett yi waaye ñu fekk mu siiw mën na ko lee nga netti ñu ne mën naa waxtaan ci benn pàcc bu tudd ngóor jigéen wax nga dëgg man léeg-léeg nit ne ma borom ñaari tur yi mën na ko ak ah, bëri ci réew mi borom ñaari tur ak bëri ci réew mi ah. waaye kon du borom ñaari tur mooy góor gu nangoo am jëkkër góor jigéen mooy góor gu nangoo am jëkkër walla góor gu nangoo am jabar ju góor aleykum salaam léegi naa benn président ci Afrique bañ na ko léegi da ngay yoonal góor jigéen mu ne waaw mën na nekk mais nag yow mi koy wax nga nekk sama femme mu ne ko tax damay saaga mu ne ko yaa mu dëkk saaga ginnaaw dina bëgg yoonal góor jigéen kay nekkal sama jabar mu ne ko ndax loolu tax nga di ma wax mu ne ko yaa mu dëkk saaga léegi ñoom bi ñu xamee ne du ñu ngénte dafa am benn président tam ne ko mbirum góor jigéen mu ne ah d'accord naa ci mais nag fii ak 6 mois da ngeen di jënd carnet de santé ñu yëg ne ëmb nga waaye daal bu ngeen takkee jabar janvier septembre ngénte wulee duma leen tëj kaso dama leen fetal ngeen de man ngeen dem na comme na def ñu ne ah kii dafa dof Ah, waaw moo tax góor gu nangoo am jëkkër ak góor gu bëgga a takk jabar ju góor lay xew ca diggante ba day yàqum pénc di yàqal nit di yàq ak nitee moo ki mbokkam dafee am mbokkam mu ñu tudde planning familial am mbokkam la bu dul doomi ndeyam it di doomi bàjjanam planning familial benn am na fi mbokkam ñu wax avortement médicalisé am mbokkam la muy ña muy ñetti mbokk meneen mbokk mi mooy jigéen ju bëgg jëkkër ju jigéen ak jigéen ju nangoo doon jëkkëru jigéen mi moom moom it ci mbokk la ko mhm. defe naa siyaax li ko xuma waaye am nañ meneen mbokk nag mooy yéex a sëy <laughs> góor gu am trente cinq ans ci tëkkul jabar naa ko gis Dakar waaw gaa yi xam nañu foofu la ñaar fukki at ak juróom oustaz daan góor daa war a takk su amee su amul su ko mëneeg su ko mënul defe naa Brescia laa ko waxoon kon yéex a sëy googu ci mbokk li ñu bëgg waxtaani la bokk waaw ca tege mooy njàng mi dul jeex mukk juddu di jàng ba xëy màggal ndax xam ngeen jigéen dafa am période boo xam ne bu ci tollee njurum doom tàmbali bu ko weesoo njurum doom weesu léegi nag bu ñu fexee ba mu ne ci njàng mi ca ba muy nekk lu ndaw ne ca ba fa muy mujj mooy daanaka mën a pause ndax di jàng ba am trente cinq ci jigéen dix ans nga dese muy fukki at te fukkaat yi bu la ci yàlla baaxewul benn doom nga ci am ndax sa doom ji njëkk day fekk say organe màggat say cër màggat sa deret màggat sa yuur màggat boo ëmbee am problème te boo onkee ñaar yoon docteur bi yëgal ci taabal ji très dangereux il faut ñu opérer ko daal lay opérer docteur bu jigéen bi tiim la ne la loo xam ci plan boo fi ambaatee très dangereux de nga ne defal ma doo ko tey dangaa sonn ñu defal la donc benn bébé ngay am ndeysaan fi deuxième bébé ñëw fekk la nga am quarante cinq ans nga mën a pause yii ci mbokk yi la bokk meneen mbokk mi mooy li ñuy tuddee libéré jigéen ñi yewi leen ci buum yi leen yeew bàyyi leen ñu dem wala ñu fexe ba mu moom boppam ci wàllu koom-koom ki koy yor boo ko yoree mu dem boo ko yoru mu dem te loolu nag day jafeel penc mi yii nag bu ñu àndee ñoom ñépp li muy teg kon mooy na fi na fi famille jóge na fi famille jóge ndax lii bu demee ay téeméeri at ci kanam téeméeri at yoo xam ne góor jabar ju góor lay takk jigéen jëkkër ju jigéen lay am ku ëmb ñu avorté ah ñenn ñay jàng ba màggat dama ne loolu buy dox ba am téeméeri at ci kanam mën naa jural am penc ak njabootam des ginnaaw walla muy deex sama beneen tomb mooy góor jigéen jokkaloo googu am diggante góor ak góor ci jëflante dafay lor ak wér-gi-yaram lu samay wax ak docteur Mahmoud Hajjal si moo ko wax ci téere bi tudd euh, amradul jinsiya wa tanasuliya moo ko ca wax ndax la yoon ci yàlla lootu waxoon nitam ña sama doomi jigéen yaa ngi nii hunna atharu lakum baat boobu lu jar bàyyi xel boo ko fi bàyyee nag fas ne yow nga ne sa bànneex yaa ngi koy amee ci góor ni yow lu ne mën na la caa fekk lu ne mën na ko caa fekk moom waaye lu ne mën na caa fekk pénc mi tamit lu ko cay fekk la ca jiitu mooy feebar boobu nit ñu tudd ci pénc mi di ko def tuddee faqdul manaa wala ñu ko tuddee sida ci ci ci wax ju jege mooy ku xas am feebar boobu yi daan taxaw ci saw yaram di xeex ak feebar pour génn leen moom yooyu lay rey xam nga soldaar boo xam ne euh, dafay xeex ay soldaar am lu ñëw xeex ko moom ba mu faatu soldaar ya fa doon xeex dutuñu fa nekk bay mën a xeex loolu daf koy joxe te bu xasee jox kenn nag maanaam bu feebar ba bu xasee dal kenn kooku mu dal daf koy jox keneen kooku daf koy jox keneen ñu ko joxlante rek muy gën di yaatu yàlla nu jàll musal musal ci sunu pénc bu ñaaral bi ci feebar yi muy joxe mooy nit koo xam ne yi ko yàlla dencal téye ko sidit yi koy téye day deñ xam nga yàlla daa mos a saaga saaga bu doy waar ci suratul xiyaama mbakke cheikh cheikh islam xaaj ibrahima ñas rek laa gis bu ci masaan àgg moom ne naa ko wax te jàll mu ne ko yàlla saaga saagal wàññiwul dara yàlla daf doon wax ci nit ñi nee na dafa am ñuy taxaw di di discours moom yàlla di ko weddi mu ne ah yàlla mu ne ah nahnu xalaqnaahum wa sadadna asrahum yàlla mu ne mu ne waa li nga añee taxaw ci kanam nit ñi di te yàqoo sa tubay man mii la xanaa saaga na saaga de <laughs> dégg li mu wax rek nahnu xalaqnaahum wa sadadna asrahum wa isa sina baddal tamit amsalahum tabdila yàlla mu na yow mi taxaw di discours di ma weddi su ma neexoon li nga añe génn fi nga taxaw surtout ba yàqu nit ñi bàyyi dëgg la <laughs> moo ndox mi nag ndox mi nit ki naan di taxaw discours yàlla di ko weddi bu neexoon yàlla fi waa ji taxaw ndox mi tuuru ah bu defee protocole yi ñëw rek day sànni guuf ko yóbbu benn président ca arabia daa ñëw di wax rek ndekk braquet bi daa ubbiku waaw ne camarade ay yàlla xudur am ku ne ko kilifa gi sa tubéy ji de tëjoo baraake bi loolu la ko journaliste mu ne ko non jarul tëj parce que ñun liñ def lépp du transparence la ba liñ jiital sax dañ leen koy wan xam nga arab waaye loolu rek fi ñu sëñ Mbàkke tas nañ picc te nit a ngeeg ay yuut bu neexoon yàlla si gi ko téye dañ yuut yi tàmbalee ñëw dañuy fomp ba sonn rek bàyyi la fa dem baqata na waaw ah léegi nag feeba li ñu tuddee góor jigéen maanaam góor guy joteeg jigéen ak jiite wala góor guy joteeg góor ni moom wala góor gu ko nangu day tax sidit yooyu doon téye yooyu yàlla bàyyi sidit yépp ndax jëppi leen ñoom ñaar lépp yi tuur lépp yi tuur bu ñetteel bi ci feebar yi mu joxe mooy góor gu dul soxlaati jigéen waaw góor gu dul soxlaati jigéen léegi jigéen dootu ko mën a bànneexal góor ñi moom moo koy mën a bànneexal waaw bu sàggaam réew mu toll ni Sénégal ñu am ñu am benn manqué manqué jëkkër jëkkër yi doy ñu bu góor yi bëggee jëkkër kon fu loolu feebar la ko ar raxba anil mara te bu feebar baaxul ci pénc boo gisee ñu daan wax naan wari gar diw dafa takk diw amel na ko ay warigar lan mooy warigar tafsir Moussa Gassama warigar gar mooy gaynde gaynde gi lu ko war pour mu jot ci ndaw si ñu rëddal ko ko mu dem nawetaan yi bu ñëwee indi ko ñu jox ko ko mais bu fekkee góor soxlaatul loolu feebar dugg na ci penc loolu ci xeeti feebar yi la bokk docteur Euh, Mahmoud Hajazi bu ñeenteel bi loolu day yàq ay sidit góor guy soxla góor mi moom ay siditam day yàqu góor gu góor di soxla ay siditam day yàqu seen sidit yépp day yàqu moo tax ci jamono yu lool kiy door a dugg ci góor jigéen bu la jabariloo defalul formation doo bokk ndax góor gi dóor a ñëw day góore am de waaye jabariluut mooy damm say sidit damm voix bi damm loxo yi damm tànk yi ba nga man li lacc-laccal comme jigéen muy xëy rek mel ko loolu yomb moo tax bi yàlla yu dumal góor jigéen ña ne ko ah sa jabar nag danaa ko dumuwaale ndax ñoom ñëpp moo leen formé xam nga loolu ci feebar yi la bokk bu juróomeel bi ci docteur yi mu mooy góor guy soxla góor mi walla ñu ñuy soxlonte seen mux seen yuur day yàqu seen te ku sa serveur yàqu xam ngeen suñ machine yi bu bu bu serveur bi yàqoo c'est fini boo bindee alif mu bind la jiim nga bind laam mu bind la miim c'est fini góor guy dox ci yooyu day mujj ak moom tam nun lay mel ci péncam beneen bi góor jigéen góor ñi koy def doyuñu góor jigéen ñi ay jabar ba tax léeg-léeg ñu bëgg boole seen jabar ak seen faru góor waaw boole seen jabar ak seen faru góor adduna tukki bu juróom ñaaral bi mooy li nga xam ne mooy seen cër bi nga xam ne yàlla bind ko pour loolu ñoom ñu koy jëfandikoo pour loolu dafay gaaw ci def cancer dafay gaaw ci def yeneen xeeti feebar waaye da da da koy tas da koy toj da koy yàq loolu nag su am ci ñoom tamit bu jëlee foofu feebar bi kum séqal nga am ko waaw ba joxante deret ak yooyu sax mën na ci am bu gaa yu góorgóorlu bi ci mujj muy juróom-ñett mooy cër bi nit di am ba tax muy am bànneex su fekkee daf koy jëfandikoo ci góor mi moom cër ba day mujj day lànk benn mu am ñu tuddee téye impuissance la ngeen di wax xaw ma nga xam ne léegi kuy jaay ay garab ci rajo bi rek Abdourahmane ñaari baax ngay wax rek wax ñuy jaay yooyu mhm. benn baar la ne góor gu tële tële ci néegu sëy ñaari baar li wax ah, <laughs> bañ bëgg a def feebar boobu feebaru pénc mi nañ ci mucc ngeen mucc ci lim ay xeeti feebar la yoo xam ne docteur Mahmoud Hajazi moo ko wax ci téeram bi ma tudd léegi sax daam sama ñetteelu tomb mooy kañ la fi góor jigéen ñëw góor jigéen góor jigéen ba mu fi ñëwee ak a yàgg waaw ci jamonoy Lóot ak Ibrahima ci jamonoy Lóot la fi góor jigéen am moo tax ba loolu waxee daf na leen xaw ma ku leen ko njëkk a def waaw maa sabaqakum biha min ahadin min al alamina kenn njëkku leen ko def kon ñoom ñoo ko njëkk def xaw ma lool moo tax sëñ Mbàkke ba mu naqaree sunu boroom la yebal ku jàpp ne mën na ca dara mën ca dara nag mooy mu may ko fitu mu dénoncé ko bu ci dee am ngërëmam mu daal di yebal ñu wax loolu dana ñëw ci yàlla dalay jàngal ci alxuraan ne yonent bu ma sa bu ma sa yónni nii laa ko yónnee waaye loolu moom neneen la ko yónnee lu bokk te ndim leen yónnee waaye daal miti loolu ña ñoo njëkk a def mbirum góor jigéen góor guy takk jabar bu góor ak góor guy amul jëkkër wut ci xale yi benn xale adopté ko ndeysaan bu xale bi màggee am problème mooy bu ne ana mama ñu ne ko yow un mama nga am te tubaab xanaa du wax un mama <laughs> loolu dara gën koo garaw xale bi ci lay tàmbalee moom xaat am problème parce que daa jàngi école ñu ne ko ñu ne ko un papa et une maman def na noonu léegi mu ñëw ci kër gi ne ana maman ñu ne ko voici un maman xale bi ne am problème mais kon suñu jàngalekat bi moo mënta jàngale ndax un pour lu góor la une pour lu jigéen léegi nag ñu fekk man kiñ ne mooy sama yaay ñu ne ko in ba noppi muy góor loolu mën na koo jaaxal lool moo tax foofu lay tàmbalee message bi ko dugg tàmbali koo def góor jigéen ni ñaari waajuram yi ko adopté message la bu garaaw ci xale bi ndeysaan yàlla na ko yàlla yërëm te yàlla bi mu bari sama juróomeelu tomb kan moo jàngale góor jigéen le professeur mooy ki samp ndëndam ne yàlla kenn du fi baaxe la aqudanna lahum siraataka almustaqim kooku mooy iblis moo jàngale mbirum góor jigéen ba mu ko jàngaleem góor jigéen lay takk jigéen góor a koy takk waaw fa ankihu ma taaba lakum min an nisaa Sëriñ Cheikh nee na sunu borom sunu borom bu yemoon ci xelum Sénégalais képp danaan fankihu maa taaba lakum rek waaye du wax mini nisaa ndax ñun liñ doon jàpp kon mooy góor jigéen rek lay takk mu ne waaye yàlla roof fa baatu mini nisaa mu ne dafa xam ne jamono ngi ñëw nit dana solum laafa taseg ca jàkka ja ko solum laafa muy ñaari laafa ñu may menn laafa mi borom menn laafa mi suñu jar ko doon wax mu ne keroog nag la addunay tàmbali yàqu laafa muy takk laafa ni moom mu ne laafa na takk musóor borom musóor borom musóor na ko borom laafa takk mbokk yàlla yàllay wax ci góor jigéen dafa am benn ibaara bu am solo walla ay ibaaraat yu am solo yu mu doon waxee yonent yi dem leen ci alquran ci laaraaf bi yàllay yónni nuux laqad arsalna nuuxan ila qawmi fa qaala yaa qawmi ubudullaha ma lakum min ilaahin xayru yàlla nee na maa yónni nuux ci ay mbokkam ba mu ñëw ñu leen sama mbokk dama leen di woo ci aqida mooy laa ilaha illallah nuuhun rasulullah al araf ay cinquante neuf waaye ustaas bi mu yebal huud wa ilaa aadin axaahum huuda wa ilaa aadin axaahum dégg damaa yebal aab ca mbokkam ya la damaa yebal huut ca mbokkam ya aad waaye dégg nga def ne ca mbokkam ya mu wax la noohun waxoon wa ila thamuuda axaahum saaliha waaye bi mu ñëwee ci loolu mu ne wa luutan foofu lu jar taxaw la mu tax góor jigéen boo dee xaritam yàlla dana la duma bu waxee nga muuñ ca muuñaay ba yàlla dana la duma bu reexee nga ree yàlla duma la bu jaaree ci koñ bi nga jaar fi jaar teg saw dàll ci dàll mu duma la boo ko mayee xorom mu duma la boo ko abalee paaka mu duma la bu ñëwee sa kër toggal la mbanam mu duma la su la jàngalee mbaxalum góor jigéen yàlla duma la loo séq ak moom rek yàlla duma la moo tax fii wa ila aadin axaahum huuda wa ila thamuuda axaahum saaliha daal ne wa luuta lu tax waxul wa ila wa ila saduum axaahum luuta mukk boolewu leen moo tax affaire bi bis boo ko xeebee defe ne ah daaya euh, fii nekk rek loolu ëpp naa def moo tax yonent bi ñàkk ko xeeb tax bu góor ma solo lu jigéen sax mu ne ko yàlla na nga toskare bu góor solo lu jigéen mu ne ko yàlla na nga toskare laana allahu rajula yalbasu libsatal mara wal marata talbasu libsata rajul noonu la ko wax moo tax bay bayal gi baaxul waaye xaritoog ak ànd gi nag baaxul waaye yëgalal ko programme yi baaxut dafa am yoo xam ne ci pénc mi Mbàkke ignoré ko rek moo cay baax waaye wax ko wax ko tudd ko da koy siiwalal am ko ragaloon tàmbalee ñeme ay bu njëkk waxuma la jigéen sol pantalon waaye góor ma bu ko masaana sol waa kër ga daba booba da ngay ragal tubaab bi ndax nga mucc ndax ñu yàlla tuddee sufaha boo leen jàppul sufaha commencé leen roy moo tax terme bi yàlla waxee te kat ustaadam bi mu ci noppee ba dellusiwaat daf ne wa ilaa madyana axaahum shuayba wa ilaa madyana axaahum shuayba kon yonent bu yàlla yónni dafa ci say mbokk laa la yónni luut nag yonent it ku ma sa ñëw def naan yaa xawmi wabudullaha maa lakum ilaahin xayru am de nooxul ñëw direct loowutum kon luut ñëw direct rek is qaala li xawmi ataatuna alfaahisha ñee dañoo ñëw di régler aqida moom mu ñëw rek songu société bi waaw ñee dañoo ñëw wax bu dul lan xayru foofu lañ tàmbalee mais moom tàmbalewul foofu de dafa ñëw rek ataatuna al faahisha waaw mu ne mbokkam yi lu tax ngeen ñemeru bon al lu tax ngeen ñemeru bon waa dëkk ba ne ko am lii loolu mën na leen innakum la taatuna alfaisha ay la taatuna rijal shahwa min dooni nisa yéen a ngi wut bànneex ci góor ñi yéen bàyyi fi jigéen te gis nga góor sax gi am jabaram di joteeg moom ah fi nga xam ne fi lay demee toile ngir baal ma ci baat bi kooku sax yàlla ne ñun nee na bu yomal xiyamee moom yàlla du ko xool moom moom noonu waxuma laa nag benn xaaj bi mu ne leen ataatuuna alfaaisha maa sabaqakum biha min ahadin min alaalamin innakum la taatuuna rijaala shahwa min dooni nisaa bal antum qawmun musrifun yéen a bon mu ne leen yéen a bon waaye Oustaz Dame li tax yàlla tànn loo mooy daa xam ne ñeme naa dénoncé mbon boobu penc mi dafa am yooyu lootun bi ko yàlla yónnee day wax ca mbon nga mu bëgg lu mel nii nit ñi wax ci ba waa penc mu yëg ne lii baax ba waa penc mu yëg ne lii baaxul ñëpp bàyyi ko te bañ a ànd ak ñi koy def man de danaa koy nekk léeg-léeg Oustaz Mbacké soxna si daa togg añ ma ñëw añ bi xamuma ko ndax du maafe maafe moom xam naa du ñaaru ci du ceebu ganaar bindeefu yàlla du mboq lu mu sànni du laaxu caaxaan du sere man xaw ko ma ne ko waaw soxna si loo togg tey mu ne mbax mbaxalum góor jigéen ma ne ko waaw kay man kay bii palaa xaw ko comme comme ñamaguma ma teg fa kudd dem bitig ba jënd mbiskit comme mbiskit moom sama xarit la lépp kub kub ndeysaan moom copain mbiskit depuis Saalum xaw ma depuis Saalum ndeysaan ci kub kub ma dem jëndi ko soxna si li nag ma ne ko ah am sama kër gi joxe dépense fay mbindaan jënd gaz ñu toggal ma mbaxalum góor jigéen ma lekk ko amatuma fulla mu ne ma dudul tàkk ci kër gi de ma ne ko ah kon de jàmm maam man nag comme du ma xuloo sadda boo ma dama la fay bàyyi nank rek dem jëli miskit miskit moom sama xarit la macha allah mu tax soxla sa jëkkër ji def na ko damay ñëw Sénégal mu ne ko foo toll mu ne ko Mauritanie mu ne ko waaw kay Saalum Sall dafa bëgg miskin mu jënd ci bëri bu miskin ñu may bëgg dem màkk laa maye la ca des waaye mbàkke maanaam comme lii yàlla daf ko bañ bañ mu ànd ak moom bañ léppam waaye waaye bañ a léppam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 لا